yi a fës ci biir internet bi ami internet yu 24 actu yi bàkk ba jibatina ni ki tey rek ci àllarba ji yemoo ko ñaar fukki fan ak ñett ci weerum décembre atum ñu door mbas mi ka tolluwaayam ci biir réew mi Sénégal daal di def lu tollook 1439 ci ay test ci biir loolu rek 98 ñoo ci daal di dikk positif maanaam amee jàngoro ji ci biir 98 yi nag am nañ ci 35 cas contact am ci cas importé amit cas de la transmission communautaire mu mel ne rek cas communautaire yi daal mi ngi gën di wéy di lëmbe mim réew 65 patients yu ñu hospitalisé woon nekk daal nañuy wër ba dinañ delluwaat rek ci seen kër Sénégal nag daal nay wàññi lu toll ko 30 cas grave ci service de réanimation yi muy ñi nga xamante ñoo nekk daal ci diggante dund ak dee lim bi yokk lool ba toll ci 30 ñu leen di ñaanal rek suñu borom daal di fëgg seen bopp bañ mën a delluwaat rek ci seeni kër si dese rek la ñu daal di am ba mbas mi nag duggee ci réewum Sénégal ak léegi Sénégal ñu ne lu toll ko 18 043 rek ci ay cas moom lañ daal di am rek positif fi mbas mi duggee léegi ci biir loolu rek 16 657 yi daal nañ ciy wér 378 yi a ñàkk ci seen bakkan ñi ñuy saytu nag ci lali hôpital ñu ngi toll ci mil 1007 ministre bi rek di gën di ñaax askan bi ñu gën a sàmmonteeg mesure barrières yi kër docteur digle ngir xeex bi ñuy xeex mbas mi rek daal di gaaw jeex rek ci mim réew Eh, ci mbas mi rek la ñuy daal di desini te région bu Fatick nag ñu yeewoo ak nouvelle bu naqari lool ndax leen waralu ko rek lu dul mbas mi lëmbee mim réew ci centre traitement des épidémies bu hôpital régional bu Fatick nag daal nañuy enregistré seen premier décès lié rek ci Covid 19 bi buñ sukkandikoo rek ci laas kookee ñàkk bakkanam du kenn ku dul rek ab imam nekkee ca mosquée wu quartier traditionnel Njaay Njaay moom daal moo daal di ñàkk bakkanam ci Covid 19 bi ab imam la moo fa daal di ñàkk bakkanam rek foofee ca région wu Fatick. ñu daal di wéyandi ba tey rek ci mbas meek tolluwaayam gis nañ ne ñi nga xamante ne rek moo di artistes yi bëggoon nañoo amal rek niki tey ji rek ci àllarba ji ab doxum ñaxtu ginnaaw bi leen teree rek lépp loo xamante ni rek dañ ko doon amal di tëgg rek ci boîte de nuit yi ak bar yeeg restaurant yi ñoom nag bañ meree ba futtu daal tollu tollookum atum yàlla amuñu benn yoon seeni activité ba tax rek tey ji ñu bëggoon a am rek ab doxum ñaxtu waaye préfet bu Ndakaaru nag daf leen daal di tere rek mbir moomee ndax lépp loo xamante ni daal da di jur ab rassemblement jamono ji dañ koy bañ ngir judduwaatu ko deuxième vague bi artistes yi daal jamono ji rek mer nañ ba futu ginnaaw bi nga xamante ni dogal boobee daal dinay wàcc tukkee ci préfet bu ndakaaru daal di jëm rek ci ñoom ci artistes yi rek la daal desandi ak seen bëgg-bëgg boobee nga xamante ni am nañ ko gis nañ ki nga xamante ni nag moo di maître El Hadj a tàkkale rek sévèrement la mu wax rek nee na artiste daal ndax nee nañ lépp loo xamante ni da di ab dajaloo jamono ji ñoo mënuñoo amal seen activité te duñ def dajaloo ndax képp koo xamante ngay def am baal ak lu ni mel ak feccat yooyu mënta am distance boobee day laaj li nga xamante ni rek moo di jegalantoo ah, te jamono ji laajul jegalantoo ñoom artiste daal xawma kan lañ yàpp moom ki nga xamante ni daal mooy maître El Hadj Diouf moo ko daal di xam hamle dañuy daal di wéyandi wax ci ki nga xamante ni rek moo di Dieyna Baldé ginnaaw bi mu amee woon rek jafe ki nga xamante ni rek moo di Mamadou Diop ISEG ñëpp xamoon ko ba Mamadou Diop ISEG ñu ko doon toppee affaire pédophilie ak détournement de mineur jëm ci ki nga xamante ni rek moo di Dieyna Baldé ginnaaw rek ci ab entretien bu mu seqoon ak waa l'Observateur Dieyna Baldé yëkkati na fa nag ay kàddu ngir di rëccu bu baax a baax li nga xamante ni rek seqoon na ko ak ki nga xamante ni moo di Mamadou Diop ISEG ne jamono joojee ba mu koy def rek xelu mag daal la yorutoon waaye nekk na loo xam ne rëccu na ko lool jamono jamono jii daan na cee toftalaat ne ki nga xamante ni rek moo di Aïssatou Sey di nekk ex jabaru ki nga xamante ni moo di Diop Iseg moom bu tasee woon ak moom sax du ko xàmmee ba kàddu yi nga xamante ni daal doon na ko yëkkati jëmee ko ci moom nekkul benn yoon lu am ki xam ne yooyu la kàddu rek moo di Dieyna Baldé ñu wax rek ci fowukaay boobee nga xamante ni rek nemmeeku woon nañ ko niki fan yi ñu génn mu doon def li nga xamante ni rek moo di boisson boobulee di nekkoon alcool xale yi nag doon ko jënd doon ko fooyee ba tax rek am na ci ñenn xale yoo xamante ni sax bañ ko jotee utiliser dañoo daal di màndi woon ginnaaw rek ñuy jàppee ki nga xamante ni rek moom moo doon indi yëf yooyee fii ci Sénégal projet ba nag daal nañ koy dàqani rek niki 29 décembre ab bii ñu dëtmal buñ sukkandikoo rek ci laas moo xam ne loolee nga xamante ni daal tribunal bi daal nay dàqaat li nga xamante moo di projet boobee jëm jëm ca njaayum alcool booba yi nga xamante ni daal indi woon nañ ko ci mim réew lépp loo xamante ni rek ruusaniwaat na ko jëm ci loolee dañ leen ko dégtal ci suñu yeneen a jotaayu xibaar ñu daal di wéyandi rek wax ci ki nga xamante ni moo di Serigne Modou Kara mu nekk jamono ji rek nga xamante ni moom la ñuy gën a waxtaane rek ci réseaux sociaux yi ginnaaw rek centre de redressement boobee nga xamante ni daal am na ko moom Serigne Modou Kara ba ñu bëri rek rafetlu wuñ ko woon ñu gis na nag ki nga xamante ni moom moo di Serigne Modou Kara daan amal am ndaje ca stade Demba Diop rek ay 31 décembre ak yu ni mel waaye jamono ji rek ginnaaw dañoo tere lépp loo xamante ni nii da di loo dajaloo moom Serigne Modou Kara rek daal di lay xam ne le premier janvier bii ñu dëtmal dina amal nag am ndaje ak taskoti xibaar bu 16 heures jotee rek foofee ca këram di Mermoz nee na nag mi ci woo ñëpp ñu daal di ñëw ndax dina waxtaane lépp loo xamante ni rek da di actualité yu ni mel moom moo Modou Kara daal kon dañ koy xaaree rek niki 1er janvier bi ñu dëgmal ba xam lan la nar a waxtaanee ak askan bi ñu daal di wéyandi rek wax ci ONG Jamra ginnaaw rek bi nga xamante ni def nañu ay remarque jëmee ko ci yenn série yi nga xamante ne nii ah, mi ngi daw rek ci Sénégal ñu ciy gis nag ay séquences yu doy waar Jamra rek daal nañuy déposé lu tolloo ko ñeent plainte daal di ko jëmale ci Sénégal ngir xam ne ne bëggatuñoo gis yooyee nga xamante ni mi ngi am lañ fas rek moo di karma bokk na ca séquence boobee nga xamante ni doxoon na ci diggante ah, Amileya ak ki nga xamante ni moo di Abdou Majib Kebe mu nekk image boo xamante ni dafa doy waar ah, série bii di infidel tamit gis nañ ci lu ni mel rawatina nag nag séquence bi nga xamante ni moom lañ doon gën a waxtaane jamono ji rek ci réseaux sociaux yi mu di série boobu lee ñu tuppee à néegu sëy mu gis nag ay image yoo xamante ni dafay jéggi dayo lool te nekkul loo ne loo xamante ni nii rek dafay defar waaye dafay yàq ba tax rek waa Jamra daal daal dinañuy jug rek taxaw temm rek ci lépp loo xamante ni daal dafay nekk image bu doy waar jéggi dayo lool ci gisin ñoom daal fas yéene ñoo def seen kéem kàttan ba loolee dootul amati ba tax rek ñoom waa Jamra daal di jug déposer quatre plaintes jëme ci waa Sénégal ngir ñu jàppale leen rek ci image yooyu yooyee nga xamante ni mi ngi woy rek di lëmbe rek ci mim réew ñu daal di wéyandi rek ca diwaanu Gambie mariage boo xamante ni dafa amoon foofee rek ca diwaanu Gambie ñu gis rek milliardaire gambien bii di Jaina Dabo daal di ñëwaat rek ak benn collier or boo xamante ni rek takk na ko valeur ba rek di jar 200 millions gis ngeen noonu nga ko gisee rek ci image yi noonu la ko nit ñi rek di gisee rek di ko gën di partager ci réseaux sociaux yi commentaire nag bari na lool jëm ci li nga xamante ni moo di collier boobee nga xamante ni Jaina Dabo daal di koy takk rek valeur ba ma nga toll rek ci 200 millions. ñu daal di koy jeex rek faa ay dara ginnaaw rek ba ñu ko invité foofee euh, ca 2STV moom Fa Aydara rek daal di xam ne ne moom amul jotu commentaire yi waaye démb nag dafa daal di génne ab vidéo ngir xam ne ne moom jubluwu ci loolu waaye tamit nañ ko baal àq waaye teewul rek remarque bi nga xamante def nañ ko ca compte Fa Aydara boobee gis nañ ne mu ngi wàññeeku bu baax jamono jii ndax internet yi ñoom lañ xam ne ne nañ ñoom ñooy fal ñooy folli ñooy bum ñooy bummi ba tax rek comme que ñoom respecté wu leen ñoom dinañ xam nan la ñuy def ba tax rek abonnement ma ngay gën di wàññee wàññeeku rek ca wu Faa ay Aidara boobu waaye teewul rek moom Faa génn na rek daal def ab vidéo rek di ñaan rek ñu daat koy baal moom fan sami ndax nee na ñoom rek la am lii rek moo fi gënoon a fës amee internet yi dig daje rek lay doon ba ëllëg ak jàmm